gerte la goo xamee ne dañ ko bay ginnaaw bi nga xamee dañu indi ndox mi mu am nag ci weeruk avril daanaka ci biir jamono joo xamee ni nawet bi jeex na bu yàgg loolu day mel ni lu yéeme waaye su nekkee fii la amee ci nguy ci commune bu Réfane warul jaaxal kenn. ñun mbay mbayu nawet rek la ñu xamul mbayu nawet bi yow at baat si yow léeg-léeg sax nga ñëw mu échec bu échecee yaa ngi koy dàq déwén toogat ay fukki weer. waa fukki waa juróom-ñeenti weer su ko commencé waat kon xam nga kon bu leen di looloo xam ne tey bu yàlla dogalee mu mel na mu bëgg trois mois yooyu da nga mën a am dara kon loolu ak cant la. fii daanaka ndox mi maîtriser dañ ko fexe nañu ba jaarale ko fi ñu ko war a jaarale indi itam système bi ñuy wax goutte à goutte jaarale ko ci fi ko war a jaarale ba ñu yóbbu ko ci fi nga xam ni fa la ñuy bayee boo ñëwee ci béréb bi daanaka taaru na lool wert na. jekk na day wane rek ni mbay mi dox na Paris projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel moom moo fi jaar bu ñu bëggee vraiment yegg fu sori ci ci mbay il faut pas que ñu yam rek ci taw waaw léegi nag ñu nekkoon il faut que dëkk yi bu ñu bëggee vraiment yokk seen production ba yegg fi ñuy wax souveraineté alimentaire il faut ñu def promotion irrigation irrigation mooy jële ndox mi fa mu nekk en tout temps pour jox ko gàncax gi ginnaaw jaloore yooyu projet bi it am na yeneen i yoo xam ne mi ngi ko teg ci wàllu gàncax gi Paris mi ngi teg ay panneaux yoo xam ne wàllug euh, énergie mi ngi koy jëlee ci lii di naaj bi ngir mën a pomper ngir mën a fexe wàññi facture courant bi ferme bi li ko tax nekk ferme bu am solo mooy forage lañ fi def mais forage bi énergie solaire moo koy doxal voilà non seulement dafa baax ci environnement mais aussi day tax day wàññi li population yi di dépenser ci seen fonctionnement parce que dootuñ jënd gasoil. courant la nag boo xam ni day wéy di yàgg ndaxte ànd na ak jamono ci càmmeen wàll boo fi ñëwee ci Kaolack di nga ko gis bu baax a baax ndax bees la fi li ñuy wax mix énergétique jàpp nañu it ne. lu ñuy boole ak énergie bi nga xam ne moom ñuy wax énergie thermique ak énergie solaire bu ko defee irrigation bi ngir mën a bay day gën a yomb rek. non rek nawet yaa ngi am ndox saa boo ko soxlaa boo ñëwee am ndox. goutte à goutte ak solaire bi fa gën a yombal sama liggéey par rapport ak démb dañ a liggéey ba nga xam léegi dootuñ fay courant la nga daan fayee courant léegi fay dellu ci sa poche. loolu dina permetre léegi ci at bi au lieu ñu daan cultiver benn yoon di nga mën a cultiver ñetti yoon ba ñeenti yoon. loolu boo ko defee ba pare yokk superficie yi ñuy cultiver dinañ gis ne dina yokk bu baax production agricole Paris nag ab pexe la bu ñu teg ngir euh, fexe di fi amoon ñu jëlee ko fi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi dund nag soppite yu bees yooyu ba ferme yi nga xam ni moom la ñu yore nekk ay ferme yoo xam ne dafa ànd ak jamono delloo siwaat yaakaar ba nit ñi mën a am nag loo xam ne ci la ñuy suturloo saa yi nu yeewoo